dañuy taxawul sëriñ bi ci wàllum communication mooy lu mel ni waxtaan yi ñu doon def ci màggal yi ak gàmmu yi ak di eh, di jàpp yi ci liggéeyu daara yi daara yi nga xam ne ñoo nekk xelkom kon Cheikh Mamadou Bachir mi moom moo war a yëkkati kàddu yi sëriñ bi ñëpp bàyyi ko xel te xam ne kàddu yi muy yëkkati lépp ci sëriñ bi la bàyyi ko. auzu billahi min ashaytaani rajim rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi fi daje ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi ñu lislaam boole di leen ñaanal jàmm ak yërmande yàlla mu wàcc ci seen kaw ak mbooleem doomu aadama yi sëriñ bi mi ngi leen di nuyu eh, daldi may yónni ay kàddu cant nee mi ngi leen di sant bu baax mi ngi sant mbooleem ñi nga xam doon dundal guddi gi ni ko sëriñ Tuuba diglee yu baax ya nga xam ne jëre sant nañ ay jéego ñëw fi ak yu baax yiñ fi def tuyaaba yiñ fi doon seent lépp yàlla na leen ko suñ boroom defal defal leen lu kawe ay njort làq leen làq ko fu yàq yëgul nee na xam na ne jamono ji xat na lool ba ñu bari jóg yombul ci ñoom waaye li muy xat-xat nit ñi ak taalibe ak soppe jaayante nañ ba ñëw ak mbokk yi jaayante nañ ba ñëw ànd ak moom màggal gi ñu ñu def ko ni ñu ko defee ba yegg si fii tey ji loolu amu ci amul ci seen sant waaye mm, mi ngi koy fësal rek di ko eh, jox ka mën a fay muy yàlla sunu boroom mu fay leen ko barkeb Sëriñ Tuubaa mu wax ne nañu góor góorlu ci liggéey bi nañu góorgóorlu ci jaamu yàlla góorgóorlu ci sàkku xam-xam góorgóorlu ci nekk benn góor góorlu ci dimbalante loolu ay kàddoom la yoo xam ne saa su ne da koy fésal ci njaboot gi ndax ñoo bokk lépp te ñu bokk lépp nag dañuy bokk di yëkkateendoo di tegandoo ndax loolu mooy seen njiglaay te loolu moo koy may ndam te loolu mooy bëgg-bëggam foofu la bëgg ñu yegg fa ba képp kuy dox ñu gis ci melo woo xam ne buñ ne kële njabootu sëñ Mourtala njabootu Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke moom sëriñ saayu la kenn du ko nattable ndax seen xam-xam seen doxin seen yar seen bëggante seen nekk benn nee na loolu yéen a ngi ci waaye ngeen gën góor góorlu ñu ngi leen ci ñaax bu baax a baax euh, nee tam euh, liggéey bi fii mu egg euh, nañu xam ne liggéey bi bari na ndaxte yoonu murit yoonu jëm ci sunu boroom mooy yoonu murit rek al iraada yoonu jaayante la ñu njëkk ña ca saxaabatul kiram lañu amoon ci sunu boroom jaayante moo leen ko may laqad radiyallahu is yubaayi'unaka tahta shajara yàlla sunu boroom dafa gërëm ñu njëkk ña ndax jaayante ya ñu jaayante woon ak yonente ba ca jamonoy xat-xat yooyu te saxaabatul kiram ñu baax ñooña góorgóorlu yi ñu def ba wattu lislaam sàmm ko bañ jot si bu ngeen jàngee taarix yoonu morit di ngeen dégg ñu ne sëñ bi daan na wax ne na ngeen góorgóorlu te muñ ndax saxaaba yooyu ñoom ñooy seeni bàyyi ci diine kon ñun kat lu ñu jànkoonteel ci ay tolof-tolof ak i metti metti dañ ko war a xeeb lool wan ko ginnaaw ndax ñooña lañu jànkoonteel moo gënoon a metti fuuf waaye jéggi nañ ko ndax seen pas ndax seen pas ak seen wóolu yàlla ak bëgg ko ak nangoo topp yonente bi ak i ndigalam moo leen yóbbu fa ñu yeggoon loolu sunu boroom daan maye booba ñi fi nekk tey jii tey xool ñooña di xool saxaabatul kiram ñu ci xeeb seen bopp lu baax loole mën nañ koo am bu leen ci xeeb seen bopp bu ci kenn xeeb boppam loolu mi ngi leen koy sax di leen ko di leen ci ñaax bëgg kenn ku nekk bu mu xeeb boppam na teg tànkam ci siraatal mustaqim roy ñu baax ñi jaayante takkaat laxasaayam bu baax a baax ndax yoonu iraada mooy yoonu bayaa jaayante la lii ngeen ñëwee nag ci li muy xat-xat ci teraanga yi ngeen indi ak jëmmi ñëw ak bàyyi e, waxtu yu seer yi lépp ci jaayante boobu lay dugg loolu lépp gis na ko xeebu ko xam na ko mu ngi koy wàcce wàccuwaayam ak dayoom kenn ku ci nekk na xam ne fu mën a nekk sëñ bi jàpp na loolu mu ngi yeesal kóllëre googu diggante ak moom jaayante boobu mu séq ak moom tam mi ngi koy yeesal saa su ne lii mu séq ak ñun nga xam ne moom nga séq ak ki nga séqal jaayante boobu mooy di la teg ci yoon di la jàngal di la teete di ànd ak yow loolu moom mi ngi ci mu ngi ci kanam nañ ko xool buñ ko xoolee du ñu juum li ñuy wax li mu ñuy waxtam ci ay kàddu nañ koy déglu buñ ko dégloo duñu juum ndax fépp fu mu ñene foofa la rek xool na ko ba mu nekk lislaam ba mu nekk njàngalem Serigne tuubaa ba mu nekk ak taalibe gu wér mu doog cee ànd ak ñun kon foofu nañ fa teg sunu bët ñëw bi ñu ñëw nag euh, dundale guddi gi nii ko sëñ tuubaa daan defee mu jële ko ci waajur yi defe ko noonu mi ngi ñaan mbooleem liñ fi ñaan ak tuyaaba yi ak yëpp ak tëbb yi wàcc ci kaw ñi fi daje wàcc ci mbooleem àdduna wàcc ci mbooleem doomu aadama yi rek ak jullit ñi rawatina ndaxte xéewal la yoo xam ne rahmaan la rahim la rahmaan ñëpp la làmb yàlla moo koy joxe rahim nag dafa am ñu mu ko jagleel waaye liñ fi def tey rahmaan la ju ànd ak rahim kon nañ ci rafet njort bu baax xam ne loolu def nañ ko ci anam yu gën a rafet ñu sëñ bi ne taazimuhu bi sunnati naa lil janna ñun noonu lañ ko defee njàng mi sell na macha allah rafet na toogaay bi baax na nit ñi déglu nañ dégg nga ku fi ñëw da nga xam ne fii dëgg rek moo fi xew dëgg rek moo fi am loolu nag ab joxañ la ki ko def saxal ko dafa bëgg nit ñu xool ko xam ne lii aw yoon la loolu la ñuy tuddee manhaj aw yoon kilifa day wane aw yoon fu fu mu joxoñi rek aw yoon la ku fa jaar doo doo réer kon mi ñuy fàttali loolu ñu ñu jàpp ko bu baax a baax bu loolu weesoo tam nañu bàyyi xel euh, liggéey bi liggéeyu daara yi ndax euh, lu toll ni ndono li ñuy tuddee turaas maanaam patrimoine walla ndono yi nga xam ne kilifa yu baaxam yi ñoo ko fi bàyyi ku gis liñ ci daj ba taxawal liñ taxawal Euh, ginnaaw bi euh, mu wàcc ci seeni loxo ñoom ñu war koo doxal war caa yokk leneen sax ak war koo dundal ku ko xool danga xam ne liggéey bi eh, daanaka boo ko doon gam-gamle da ngay defee ne tàmbulee gut donte def nañ dara li ñuy def bari na lool am na solo waaye boo xoolee dayo bi ak li ñuy xaar da nga xam ne liggéey bi des na lu bëree bari kon mbooleem dongo yi taalibe yi ñun taalibe yi nañu bàyyi xel loolu nañu nañu bàyyi xel loolu xam ne liggéey bi des na liggéey bi des na lu bare bari nañ koy càmbar di ko xool am na eh, lu we lu yàggul dara mu mu yónnee woon ci daara yi bokkoon na ci loolu nañu nañu bàyyi xel nañu nañu bàyyi xel liggéey bi fi mu toll eh, te nee na xeebu ci ay xalaat xalaat sax baax na daara yi buñ doon daje sax di di xalaat ci jëmmi daara yi di xalaat ci ndono yi di xalaat nu ñuy jàppale sëñ bi ci mën yokk liggéey bi ak gën koo jàppandal xalaat yañ fay génne sax lu am solo la jëmmi xalaat yi rek baax na lo lu ci toge nag tege na ci waaye jëmmi xalaat yi sax baax na ndax waxoon naa ko ma ne bu ñu xalaatee bu bu ne ko lii lañ xalaat mu xool ko xool la ca mën a nekk mu def ko sax ak yokkute la kon bu ci bu ci benn daara xeb boppam seen cellule scientifique yi communication yi nañu liggéey ci fànn boobu di ko def ay cahier dégg nga di ko di ko bind di ko jox sëñ bi di ko ko wax ne ko xalaat nañ ne nangam ak nangam suñ ko defoon dina mel nangam ndax loolu moom lañ doon waxtaanee tey mooy xidma xidma bi sëriñ tuuba rawe ñëpp baatu araab la boo xam ne mi ngi fi woon mooy liggéey ñu bari daan daan nañ ko def kuy liggéey rek ñu ne day xidma waaye nag da koy def te sàkku ci ngërëmal sunu borom rek ridallahi wa mardaatihi foofu la sëriñ Touba rawe ñi ci des moo tax mu jël baatu xidma kulóor ko ba mu firi leneen ba nit ñi xam ne nekkate xidma mooy dëgg-dëgg lislaam xidma soo ko déggee mooy dëgg-dëgg lislaam mooy nit ki day def da day def désintéressé wu si li muy def maanaam day def rek ngir daa war a def day jaamu ngir daa war a jaamu aju ci dara day liggéey ngir daawar a liggéey day taxawal àdduna taamirul ard yàlla bi mu bindee suuf dane wastaamarakum fiha ngir nit ñi dundal suuf si dundal suuf soosu nag ndigalul sunu boroom la loolu ci biir xidma la bokk ba tey kon nañu jàpp ne liggéey bi des na lu bëree bëri buñ ko doon gam-gamle day mel ni tàmbuleeguñu donte ñi ngi def dara ñi ngi dox waaye buñ xool loolu nañ ko xeer te xam ne ndono li moo ni toll lu lu ni toll nag boo ko cofee day suufee da nga koy jël bu baax ak sa fukki loxo def loo man ak loo mënul mooy tax bu ëllëgee ku ñëw fa nga ko yemale moom it mu wéyale ndax loolu la ñuy tuddee mashru' mashru' mooy projet projet dafa xajul ci àdduna projet si xel la xaj nit ki da ciy def lim man rek lim man kémtu lay kàttanam su su su si noppee keneen ñëw def lim man su noppee keneen ñëw def lim man loolu la yàlla bindee yu rëy yëpp nit yàlla yi yañ daan taxawal ci foofu lañ koy teg bu ko defee benn génération du ko jeexal ñaar du ko jeexal ñett du ko jeexal ndax mbirum suñ boroom lay doon waaye kenn ku ci tàbbal sa loxo te yéene yi sell na nga xam ne dugg nga ci biir jëf jooju li ci sunu borom digee da da nga ko gis mu wax ne tamit euh, mu wax ne wàllum tool yi ci xel koom euh, Euh, euh, liggéey bañ fay def ci wàllum déqi walla euh, góob mba mba bàcc mi kooku bu soobee yàlla dinañ ko communiquer ci dat ba ñi ko war a wax bu yegsee dinañ ko wax xam naa daara ji ñoom ñi ngi def seeni ndaje ak sëñ bi di ko di di dox ci diggante boobu bis buñ ci yeggee balaa yàgg bu soobee yàlla danañ def communiqué bi ñu ko war a yëg ñëpp danañ ko yëg ndax danañ ko jàllale fi ñu ko war a jàllale ñu xam ne eh, eh, dat sàngam la waaye dañ cee yëg seegut te jàppaguñ dat bi moo tax munu ko mun mënaguñ koo wax loolu mooy kàddu yi eh, diggante kàddu yi daal ñett la mooy mi ngi sant bu baax ci teewaay yi sant bu baax ni ngeen dundale guddi gi di soññee ci liggéey bi ne liggéey bi lu rëy la des na lu bëree bari li ci des nag mooy jëmmi xel koom ji nag bu soobee yàlla buñ si yegsee dinañ ko wax ba ñëpp xam kañ lañ koy kañ lañ koy def loolu mooy kàddu yi maa ngi jégalu ci guddal gi nag dama bëggoon a yéwénal rek jërë ngeen jox salaamaaleykum jërëjëf Mbàkke ñun sant nañ bu baax ku sant tuuti ñun sant nañ ndax ku nekk sëriñ bu mel nii ngay wër koo xam ni dalay woo ci yoonu yàlla ak liggéeyal sëriñ Tuubaa ku nekk bëgg na ko te amu ko jamono nag jaxasoo na lool waaye képp koo xam ne nee nga taalibeb Cheikh Mouhamadul Mourtada laa foo ko wax dinañ la siggi xoolaat la kon nag loolu ñun ñoo la ameel ak cant ñun ñoo la ameel ak cant te di la ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak wér sëriñ bi li mu wax kenn mënu cee teg dara lépp dafa mat dañuy soññante rek ci suñu biir ndigal li sëriñ bi joxe na ko te sëriñ bay jaxate dafa waxoon ni lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te toppul ndigalam kem loo defal nag sab sëriñ am lu ni toll ci njariñ loo defalut nag sab sëriñ boo ko bëggee doog kon ñun nan war a góorgóorlu laxasuwaat toppaat ci ginnaawam te wagaruwaat euh, euh, tool yii muy wax te Cheikh Saliou Mbacké sosoon ko dan ci liggéeyal yàlla ñoom foofee rek fa sëñ Saliou tegge woon rek fa lañ ko bëgg a teg kon nag loolu ñun ñoo ci war taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax jàppale ko ci ndax buñ ci jàppee kat dina dem buñ ci jàpp dina dem ndax sëriñ bi waxoon na ni sama li ma gën a bëgg ku ma ci dimbali mooy sama daara yi ndax la ma fa war su ma ko ñëpp bàyyee ma jug defi ko kon ku ma ca wuutu dimbali nga ma loolu doo ko waxee noonu rek ndax ku fa def dara it sa bokk rek nga dimbali waaye sëriñ Saliou kenn mënu koo dimbali kon ñun danoo war a góor góorluwaat gën a góorgóorluwaat toppaat ginnaawam te ñaanal ko nag mu yàgg fi loolu te wér te musal yàlla musal ko ci mbépp ndox moo xam ne dana jóge ci juróom-benn xibla yépp suñ borom musal ko ci yàlla na nga yegg niw yoon Mbàkke ñun suñ xol fees na dal amatul lan lu ñu wax waaye ñun nan góorgóorlu ñu sosal ko ci ñaan bi ndax kilifaam daf koo dénk lu rëy muy jumaa Jannatul Maxwaa mu koy jiite dañ ko ñaanal suñu borom yan bi oyof ci moom xëy yan bi oyof ci moom xëy ba rek kilifaam yi xool ci moom ba dénk ko ko ñu gis ci lu ko na nga ko woy nag